ay chef service départemental bu élevage bu Tivaouane waaw consultation yi ñu ngi soog a tàmbali euh, li ñu njëkkee mooy lu jëm ci kutu euh, yi seetlu nañ ne lu bari ci nawet bi la te bari na tamit ci yaramu yaramu jur yi kutu yi nag li mën a andi ci jàngaru bari na ndax déjà xam nga su nekkee ay kutu rek dañu néewal doole jur gi Euh, mën na aussi andi ay jàngaro yoo xam ne ci dar bi lay nekk maanaam euh, ay picc wala suñu juumee xëcc ko mu bàyyi ay abcès bon am na yeneen jàngaro sax yoo xam ne aussi dañuy feeñ muy lu ñuy wax gaa jàngoroy gaal saa ñu di ko wax ràmm looyu euh, nekk na yoo xam ne mu ngi am gaa ñi déjà bi ñëwee rek ñu ngi commencé di def déparasitage boobu bon def nañ ñaari forme yi benn bi c'est sous forme injectable dañ koy piqûre beneen bi aussi dañuy def euh, benn application kii xam ne dañ ko def ci derul nag yi bu nga xam ne fii ab diir euh, kutu bu nekk ci yaram bi dina day day dee. Euh, bon jàngoro yi ñuy gën a nemmeeku fii mooy lu jëm ci li ñuy wax pasteurellose wolof yi ñu ngi koy wax sibiru bon bu sibbi bu ñu sibiroo dina leen euh, sonal tuuti wala lool sax sibiro yi nag dañoo bari forme mais lu ci bari su ñëwee day day loofal jur gi dina leen war na leen sax faat bon di am na ci nag yi am na ci gàtt yi bon bu loolu weesoo suñ jëmee ci fas yi aussi am na ay xeeti jàngaro yoo xam ne dinañ koy faral di nemmeeku ay jàngaroy der mu jëm ci par exemple lu jëm ci ay abronémose lu jëm ci ay jàngaroy xas comme li ñu ko waxee sànq ci ci nag yi Euh, ak aussi parasitisme bi. voilà par exemple tey jii bu ñu ko jëfandikoo am dara lu muy ci suñu wér euh, euh, yi am feebar déjà xam nga dañ leen di faj mais bu ñu leen fajee aussi dañuy wax boroom jur yi ne leen fileek ab diir nangam fan jur yi mënuñ ko mënu leen a lekk donc conseils dañ leen koy faral di jox ko waaw. ñaata ndëpp yaakaar ni mën ngeen yan ñoo a fës fii maanaam li fi gën a fës xam nañ ne commune bi bari na bari na nag. bari na aussi gàtt bon tey fii tey nii nag ñi li jot a ñëw agum mooy euh, nag yi mais am nañ njort ne bu subaa sax lii ñëw ci jur dina gën a gën a bari mais xam nga boo xoolee commune bi war na amul war a toll ci quelque euh, ñetti junne yi nag bon xar yi bari nañu bëy yi bari nañu fas yi aussi bari nañ fi bon am nañ yaakaar ne dañ dañ gën a ñëw malheureusement nag tey moom gisaguñu fas bon xëy na li ñuy soog a tàmbali la xëy na aussi balaa ñuy pare yeneen xeetu jur yi bàyyi may dinañ ñëw dafa organiser woon caravane médicale dans le cadre d'une benn convention boo xam ne moo ñu lii ak commune Morolan convention boobu dañu jël engagement pour jàppale ndaw euh, xale yi nga xam ne dañu bëgg a jàngi ci école de formation yi te amuñu xaalis bu bëri daaw joxe nañ juróom fukki bourse ci euh, commune Morolan ren ñu war a joxewaat téeméeri bourse ci école de formation partenaire suñu ONG mais aussi suñu douzième caravane médical dañu décidé woon def ko région de Thiès plus particulièrement commune Morolan ñu indi benn équipe boo xam ne université Cheikh Anta Diop la jóg jógee ay docteurs yu bëri yoo xam ne dañuy xarañ ñëw pour spécialité yëpp ñëw nañ fi pour jéem a jàppale en tout cas population yi mais surtout dañu indi ay vétérinaires yoo xam ne dañuy ñëw pour waxtaan ak Euh, suñu mbokku sàmbkat yi ak ñi nga xam ne dañuy béy parce que dañu dégg ne ay conflits yu bëri dañ fay am te lii ñu def ci tey mën na tax jàmm am ci dëkk bi anti ñoom ñaar euh, suñu vétérinaires yi dinañ toog waxtaan ak ñoom pour wax leen aussi dafa am ay feebar yoo xam ne mën nañ jóge ci euh, nit dem jóge ci jur dem ci nit te loolu ñu bëri xamuñu ko donc suñu vétérinaires yi dinañ sensibiliser béy kii samakat yi pour ñu xam ne ku am gett da nga war a am réflexe chaque année gisi vétérinaire pour xool ndax sa jur bi feebar tout à fait feebar yooyu ñu ngi leen di wax ay zoonoses vétérinaire yi xam nañ ko moo tax tey waxuñu sax euh, nag yi mais képp luy euh, nuñ koy waxati dund mën nañ ko faj tey mais sensibiliser nit yooyu pour ñu wax leen aussi prévoir parce que am na ay indi nañ ay ay vitamines indi nañ ay euh, vaccin pour mën a faj jur yooyu waaw sama olof dafa tax séeréer. di leen sant donc euh, ñun ci biir euh, commune Morlan dañoo jàpp ni maanaam conseil municipal bu mu dafa jàpp ni dafa war a gunge population yi askan bi ci wàllu wér-gu-yaram moo tax ñun ñu organiser maanaam ñu taxaw ay bés yu xam ni dañuy woo ay médecins donc ñu ñëw fii maanaam ay docteurs ñëw fii pour jàppale faj mais aussi may garab maanaam waa Morlan loolu dañ ko def pour nit ñi mais dañ ko def aussi pour jur gi parce que dañoo jàpp ni ñëpp ñoo war a am wér-gu-yaram donc euh, te boo xoolee li ci ëpp balaa nit di dem dispensaire balaa mu dem hôpital rek mu mu mu feebar ba feebar bi garaaw léeg sax nit ki day am am feebar bu garaaw mais du am xaalis pour dem hôpital donc moo tax ñun ñu ni nañu fexee ba maanaam ay docteurs ñëw fii pour que dajee ak population bi pour que maanaam ñu yombal leen ko pour que population mën a faju Euh, te am na feebar yu bare ñu ngi ci biir nit ñi am na ñoo xam ne dañuy tidd tëdd seen kër yi amuñu xaalis doot moo tax ñu duñu dem faju moo tax ñu ni nañu def journée yi pour que vraiment askan bi mën a faju mais ci vraiment anam yu gën a yomb donc moo tax ñu ñu taxawal journée yi pour que vraiment askanu Morlan ak jur yi yëpp ñu mën a faju je que loolu moo tax euh, te ñoo ngi koy def aussi ak maanaam jàppale waa CACSUB CACSUB nag dafa nekk benn ONG bu nekk Université Dakar boo xam ne déjà ñu ngi liggéey ci wàllu bourse étudiants yi mais dañuy liggéey ci wàllu éducation ak wàllu santé je pense que loolu tax donc euh, ñu taxawal journée yi ñoom ñu indi ñu ay médecins ak ay docteurs vétérinaire pour que jàppale waa Morlan ci wàllu faj. waaw loolu lu jafe-jafe la parce que kii nekk fii maanaam kiy jiite wér-gu-yaramu waa Morlan yëpp. maanaam daa mel ni du fonctionnaire maanaam état Sénégal jëlu ko voilà dañ ko jël au niveau du district de Tivaouane rek ñooñu ñoo koy fay voilà léeg aussi lu ruusee ci maanaam faj mi fii loolu lañ koy moo loolu lay jot daal te alors que pour man dama jàpp ni commune vraiment commune ku yor district maanaam euh, poste de santé pour man bu commune bu tollu Morna état def ko war a jël def ko maanaam maanaam nitam maanaam euh, employé am loolu loolu lañ jàpp ni vraiment suñ ko defoon mooy gën ci ñun. vraiment ñu loolu aussi bu dee wax am na feneen du fii kese sax am na feneen mais dama jàpp loolu warul am Sénégal poste santé yi yëpp pour man ku fa nekk dafa war doon koo xam ni dafa dañ ko par l' état du Sénégal. loolu day wane ni tam loolu day wane ni askan waaw bien sûr man kay wér yaram moom fii am na jafe-jafe parce que fii moo taxoon ñu taxawal benn mutuelle de santé boo xam ne ku feebar mutuelle bi moo lay jël boo demee dispensaire doo fay dara wala boo demee hôpital doo fay dara loolu yëpp mais boo xoolee. ba léegi rek nit ñi dañoo néew néew doole bi nit ñi amuñu lu ñuy maanaam fayee mutuelle bi cotisation mutuelle bi moo tax ñu bare bokkuñu léeg-léeg aussi nit day feebar du mën dem hôpital parce que amul lu muy lu ko lu muy demee hôpital amul xaalis maanaam ñu bare dañuy ñëw maanaam commune ba di mën na di di wane seen ordonnance pour ñu jàppale leen te alors que commune bi nekkul fii pour loolu donc yooyu moo tax yëpp jafe-jafe yooyu moo tax ñu taxawal lu mel nii pour que vraiment nit ñi mën a faju am nañu am nañu yaakaar ni. en tout cas fii ak ñaari fan yi dañu faj faj au moins lu mu néew néew junniy nit loolu am nañu c'est l'objectif fixé qu'on s'est mën na ko ëpp mais je pense que bu ko ëppee moo moo gën mais loolu c'est le minimum boo xam ne on s'est on s'est fixé comme objectif